sax am loo suñu léegi nga ne euh, xaw ma mouvement la xaw ma lan sàmm ndonoy mag ñi. oui euh, nee na Serigne Mountakha waxul. joxeegul ndigal. waaw ne bu man manifestation am. vendredi waaw kooku mooy Serigne ñooñu xamoon naa leen de. Serigne Modou Bara Dolly la moo ko jiite waaw man nag damaa jàpp ne mouvement boobu mu ngi waroon tudd sàmm ndonoy Macky. Macky Macky Sall parce que moom APR la bokk moom moo taxaw ba ci politique. mom mo fekk fu ñuy caricaturer yonent bi sallallahu alayhi wasallam takal ko ay bomb ne kii nitu fitna la waa Charlie Hebdo def loolu moom njiitam am ci politique sol ne man je suis Charlie te moom marché moom manifesté wu loolu mu continuer kooku di doon njiitam moom Macky Sall Serigne Modou Bara Dolly moom moo taxaw gis Souleymane Jules Diop di saaga ay Serigne sul wax benn yoon Macky Sall dàqal Souleymane Jules Diop jamais il ne l'a jamais dit donc ça veut dire que ni kooku sàmmul la nooy mat ñi ndonooy yi la sa euh, kii ndonooy yi nag mooy tëje gu bëri gi fi raye gu bëri gi fi amul lenn lu muy sàmm loo xamante ne jar la sàmm ci réew mi day politique. ok ok ça c'est ça c'est euh, sa ànd du moom kese. ça c'est sàmm ànd jikko yi moom kese oui. du moom kese ak ñu bëri ñu lekk ci foofu noonu di jéem a utiliser affaire bii di ko politiquer Cheikh Oumar Diagne bi mu waxee ak tey ay ati ati at la def. ku doon rek ne yow Serigne Touba moom moo tax ngay ñaxtu waroon nga ñaxtu jamono jooju parce que jamono jooju professeur Cheikh Oumar yi mu doon wax man maa ngi ci doon marqué sama désaccord. mais boobu amul benn ndombal tànk de. jarul ndombal tànk bu dee politique non mais Cheikh Bara dafa jarul ndomboy tànk bu dee yow xeexoon ndomboy tànk bi. waaw dama ne kon kay ndomboy tànk bi. dama ne non c'est-à-dire am na ñoo xam ne dañ lay wax ne. koo xam ne dafa am ndombal tànk président nommé ko. waaw bu waxee ak responsabilité bi muy am bokkut ak koo xam ne xëy na am xelam la yor rek di wax di saaga. di wala di wax loo xam ne bi muy wax. amul ndomboy tànk kon tey buñ koy xeex xëy na ndomboy tànk bi moom moo tax waaye du Serigne Touba la ñuy xeexal. ndax Serigne Touba bu dee rek moom ngay xeexal Jeune Afrique def na ko fi caricature naa ma ñu ñoom ñuy di wax. non mais non non. non non parce que. non mais que mais est-ce que mais ça aussi moi débat parce que. parce que non xam politique Facebook bi lay wax lu dama nga wax nga wax ba pare da ngay politique. voilà léegi da am na ñuy wax de bonne am na ñuy wax de bonne am na ñuy politique te ñii politique ñoom ñoo takk rajo te ñoom ñii la ñoom Thierno Mouride Sade yii la. ñan ci day politique ñoom yii politique kay. kan laay politique ah bon laay politique man la. non non non non boo wax ay Thierno boo ko laay man sama bopp si lan. man politique sama bopp si lan man la. mooy politique politique def lan pour lan man sama bopp. sa bopp. Euh, parce que nga lii nii bi mu koy def d'accord ak moom. léegi yow rek yaa war a ñii def nii dañuy politique. yow sax soo ŋaññul bàyyi. non non dama attention attention. tu défends quelqu'un contre d'autres. attention non et puis non non non non non. c'est le président c'est le président non pause direct parce que xam nga yàpp murid yi weesuwul ngeen jàpp ne fukki nit wala juróomi nit tax nañ ay sëti suñu tubaab yu mel ne suñu maamoon mu suñu fàllu suñu abdu sa samat ay suñu amza suñu mutaraam suñu abdulaat bind pour organiser conférence de presse biir kër suñu tubaab jàpp ne ñooñu mën nañ leen a manipuler loolu daf la parce que ñi muy wax ne dañuy politique APR lañ bokkoon bu ñu mënoon a manipuler murid yi murid yi sa Macky Sall lañ jëm hmm. kon ñooñu mënuñoo manipuler murid yi ah non non defal naa non defal naa dama lay wax dama il faut suba suba su ma jàppoon ne war naa ko dalal ma invité ko mën na ngoo ñëw suba ma dalal ko te dama koy dalal en tant que invité waxtaan ak moom ah non bu loolu sama yónni ku si loolu sama yónni ku si beneen bi mooy wax naa ko ko tam message en direct laa koy wax ko am seen live yi nga daan def coupure yi ma si gis musuma ko setan live Omar Diagne ma ngi wax di wat si alxuraan musuma tok setan live Omar Diagne musul am ba ma ko ndeke interprété ci ngir sun Touba mbiru touba dou ma ngi Omar non dama bëgg mu cheikh non dim na leer Omar Diagne mako ndeke ko ci si ay wax yu ma gis ci Facebook ak ñun doon xulol man duma dugg si xex bu ma xamul nu dem hmm. dafa ñew fi ma woko laaj ko ko Omar Diagne man damay gis ay wax nangam ak nangam nangam. est-ce que tarixa dangaa am problème ak tarixa ak nangam naa mu expliqué euh, ma man bañu ma murit bañu ma tubaa te mënumaa bañ suñ tubaa mm-hmm. bu ma demee ba jëmmi jamono ay wax am ma gis ay vidéo yoo xam ne da see taxaw wax si tubaa loo xam ne sëñ bi dinaa nag taxawaat am beneen taxawaay parce que man nit li ma wax rek laay gëm ba keroog may gis yeneen vidéo bëri na vidéo yoo xam ne ñu bëri si coow lii lañ ko gisee man mosumaa gis Cheikh Omar Diagne ba ma koy xam ba léegi bu mu waxee ne tubaa dafa am jumaa ji am na siñ ma si bi laa ko musuma dégg Omar jaañ wax ne moom deful suñ tubaa si xolam si vidéo yi laa ko gisee si coow li si xolam defuma si vidéo yi laa ko gisee ki gën a jàq trafiquant si yoonu Mouride Touba si yoon si coow li laa ko gisee man léegi loolu dama koy gis parce que Omar Diagne sama xarit la après ma noppi benn problème laa am man en tout cas une fois maa ngi wax fii ñëpp di ma dégg ku ku mos a taxaw ne fàllu xuma waxal si mbiru Omar Diagne téléphone wala message barke sëñ fàllu maa ngi di fii amul te cooli bi mu juddoo moom laa njëkk message te li ma ko wax mooy bett nga ma parce que musuma jàpp ne kàddu yu ñaaw yi di nga ko teg si kaw murid di nga ko teg si kaw deru suñ Tuubaa parce que Omar Diagne je invité si plateau parce que dama jàpp ne borom xam-xam la si wàllu koom si wàllu monnaie jàpp naa ne réew mi si ëpp xam-xam la bokk mais wax na ay wax yoo xam ne jàpp naa ne bu ko nit waxee mu yëngal ay xolu nit li war a njëkk mooy Omar Diagne bu génnoon jéggul du ma kenn du ma mës a dégg te suba ko defoon fii laay taxaw ko attaqué a mën a da ngay politique parce que man ma jàpp mooy jullit même bu fekkee da ngay wax mu am ñum yëngal seen xol da ngaa war a arrière di ko def naan ëppul dayoo Ousmane Sonko Ousmane Sonko bu demee Sëñ Muntaxa di waxtaan moom am na fu ko yëfi toll kon encore une fois ñiy wax bu leen jàpp ne murid yi dafa am ñu leen nasse ak buum di leen xëcc naa leen saaga leen oh non murid yi bu fekkee loolu benn murid mën na koo def loolu doomu Sëñ Fallu ma xam ne jërëtul ñu yor tarixa wala jërëtul ñu yor dara Cheikh Thioro naqarul wax wax Cheikh Omar Diagne Cheikh Thioro du génnul wax ko mais naqarul ko si bind non dama ne wax waxu ko mais naqarul ko si bind non loolu dam encore une fois tey wax leen benn affaire ñii politique ñu bokk si opposition ñu bokk APR bu leen neexee naqarlu ko nañ koy naqarlu loolu ñoo la mais engagé wu tarixa murit ku nekk yaa xam ni ngay naqarlu man li may naqarlu Facebook laa koy def Serigne Touba am ci mim réew waaw te pourtant ñoom lañ kan le monsieur Thiam la bi nekkoon ci mais gis ngeen vidéo bu mu génn jéggalu musuma gis vidéo ba

déedéet. ah si Cheikh Omar saagul kenn. ah, ah daa saagul non day na saaga. xam nga non non saaga weesuwul jumaay Tuubaa dafa am signe maçonnique. xam nga yow saaga bu sa ankay ah, loolu la xam nga seetaan ma lan. laay bu Cheikh Omar yi. non léegi da coupure coupure laa gis. man nag dama ko doon seetaan. man coupure laa gis wax loolu mën naa la wax ban contexte la ko waxee. Ah, fan la wax de jumaa yi dafa am ay jumaa bi ak. jumaa bi dafa am signe ak ak jumaa ji. waaw waaw mais après. na nekk 2016. Pape Moussa boobu mooy Karim bi muy def style mbedd Top FM Karim Xrum Xax Hmm. dans la def émission Top ah. FM Vous tudd style merde, je pense ah. ay mardi la doon à partir de minuit 22 euh, h jëm foofu nag la doon wax ay affaire franc-maçon di leen wax ne franc-maçon yi ñoom fu nekk la ñuy dugg boobu ñi mu doon kii mooy architecte yeeg ñi nga xamante ne ñoom ñooy génnee ay marché tabax yeeg yooyu noonu ñooñu la ñuy euh, kii ci ñooñu la ñuy jaar dugga waa la ay affaire loolu sa argument taxawul nañ ñëw ci taxawul sa argument taxawul non non argument boobu taxawul de waxuma la loolu boo dee ab jullit jumaay Touba nga jàpp ne gis nga fa sëñ maçonnique ak ni mu mel mais loolu am na ay murid xam nga mooy dëgg wallaay azim xam nga mooy dëgg non mais Omar Diagne te dem nañ plus loin que Cheikh Omar eh, eh, Diagne Omar Diagne ku ñuy déglu la bokkut ak keneen ñooñu. no non nekkul eh, Sénégal eh, waxuñ waxuñ ko de. toog kenn toogul Sénégal nag jumaa Tuubaa am na si. te politique a tax politique a tax loolu je dis amul Sénégal politique euh, Cheikh Ibrahima Fall bu nekk Canada. kooku il est ah, day dafa contre Macky Sall bien avant jàpp ni wax na lii kooku gis kooku kan la attaqué xam nga kooku kan la lay attaqué waaw kay moom lay jiñ yooyu parce que dafa jàpp li du justifié mais dama ne mais du justifié c'est-à-dire bu ñu waxi kooku ça ne veut bu ñu waxi Oumar Diagne ñoo politique waxuma mais loolu nga bëgg a wax mais mais Fall waxuma la ne ñëpp dañuy politique. non ah. loolu nga bëgg a wax nee naa la am na ñuy critiquer de bonne foi. waaw ah. mais ñi yor coow li laa lay wax ay waa APR lañ. ñoruñu coow li nag. waaw léegi après même coow li ak waa APR ñoruñu coow li dañuy politique waa APR du ñu ay sénégalais. sañu dëgg murid dañuy politique maanaam bi ñuy attaqué Cheikh Oumar ñoom dañ koy def ci politique parce que Cheikh Oumar déjà euh, lii mu wax moment bi mu koy wax Cheikh Bara mu ngi doon jàppanteeg moom. dégg naa moment bi muy jàppante euh, bi muy wax loolu noonu. kenn kenn ngi doon jàppante ak moom. Cheikh Bara Ndiaye jàppante na jàppante bu métti sax moment yooyu noonu man dama doon nekk ci live bi di commenter yenn saa yi benn benn benn benn benn internet dugg am nu mu commenter Cheikh Oumar tontu ko tontu boobu noonu mën na ça peut être excessif du ma ci d'accord parce que nit kii mooy wax ak yow par la communauté. mais man laa wax man dañ la wax nga jàngat. li xew waaw waaw waaw ay non parce que li ngay wax nii li ngay wax nii dafa xalaat li sax xalaat ci biir bi man laa wax man li ma gëm. li ma gëm. Hmm. mooy Cheikh Oumar Diagne ku bëgg Serigne Touba la te kenn mënul dugal sama bopp bi na daa bañ Serigne Touba.

non nanguwul débat contradictoire ah bi muy wax ak Cheikh Baara Ndiaye xam nga lan la ci la koy wax naan man ci géeju aynul maarifa laay naan laay tibbi sax du kon amul contradiction de daf ko wax ci géeju leer laay naan li ngay wax xamoo ko mënoo ci wax loolu la ko doon wan donc loolu amul contradiction nanguwul contradiction maqaam lay waxee maqaama lay waxee waaw mais bon mais bon Pa Moussa mais Pa Moussa mais Pa Moussa bon c'est un intellectuel buy xalaat di wax xalaatam di mener ay débat contradictoire ak ñu bare bare bare parce que mën nga bañ a ak Cheikh Oumar bu la neexee nga ne d'accord ma ak moom nga mën a say mais lii ñuy lii may gis nii laa c'est-à-dire ñenn ñi Fallou mais boo bëggee la surtout de ça ba concerné par ça ah, ma attaqué léegi na ma damay politique waaw d'accord politique non non mais xam nga ñuy Peul par ci Olof par là Mourid par ci Tidiane par là mais amna ça dire que mëno ni parce que nous sommes li motax ñi jappali jàppale question de blanchiment amna ño xamantane magal ak gam ak ñep la boré waaw bu muy wax màggal gam lo wax entre magal ak gam bu bu bu buy wax waxu amélioration de texte ah, ñeneen ñi am mer nañ ci da nga foog ni pour yow lan bul ni rek ñoo mer ti waawoon ouverture bourdou lañ ci wax waaw mais attends ah, ah, euh Cheikh Omar euh, daf ne œuvre bu nek meun nañ koo améliorer. waaw léegi waaw d'accord léegi yow. dafa ne léegi lu ne lu ne lu ne lu ne. dañu war a dem ci dafa ne nous devons aller vers un monde post tarixa. waxna na loolu lan lay la lay wax. am na ñu gëmul tarixa sax. wa wa am na ñoo gëmul tarixa lan la ci daf ko gëm wala gëmugo mom mi wax dañu wara dem vers un monde post tarixa. waaw est-ce que gëm nako wa waaw am na ñoo xamante ne nee ay bidaa la baxul safara la ñu jëmee. d'accord non waxuñ ci ñoo xam nga dama la bëgg wax né Cheikh Omar bu taxawoon ne la sax tarixa gëmugo ko. da ko koy nak mais amul droit attaquer tarixa wa amna ñuy attaquer dafa attaquer ah mais ñoo ñep xolal xolal xolal xolal problématique bi c'est aussi simple ok c'est quoi euh, envoyer nañ ma bindu professeur Rawan Bay mhm. mu jël bindu Sidi aji malik traduire ko en français améliorer ko améliorer comme améliorer ko améliorer moy la <laughs> ah non non ankay dede dede ankay la ko mu ngi tuddu Jawahir Mani daf ko traduire en français. améliorer ko. Jawaahirul Maani Alaaji Malick bind ko. loolu defal na da ko bind Alaaji Malik ah. bindul Jawaahirul Maani defal li ma la wax li ma la expliquer nii dañ ma envoyé texte bi. dafa juum xaw ma duñ la envoyé mais bind ko. yow ko envoyé mun na juum waaw Seydi Aliou Malick la jël traduire texte am moom ci boppam moom. defal professeur. non google moom dama lay wax ne loolu référence la euh, ci bépp euh, tarixa tijaan mais ah, Seydi Aliou Malick bind na ci moom mu traduire c'est-à-dire xam nga problème bi lan la. bu dee rek nangu nañ ne seule l'œuvre de Dieu est euh, parfaite na bu dee nangu nañ loolu kon lépp mën nañ koo améliorer. lépp luy œuvre humaine am na imperfection. déedéet bu dee am kay. du lépp lañ mën améliorer de. waaw non. du lépp lañ mën améliorer. donc comprendre l'essence de ce que l'on dit. parce que daf ne seen daf ne seen écrits sont améliorables parce que seen i bind ne sont ne sont pas toutes parfaits loolu la. Ah, mais loolu laa wax nga comprendre esprit ça ne veut pas dire que ni. Euh, mais yow Pape Saayo da ngaa d' accord yow Omar Diagne Omar Diagne ak ak lim yëngal si ay xolu julli yëpp bu dafa war a toog nii quoi warut baalu warut comme voilà quoi. d' accord ak moom nga. non dafa d' accord xam nga waaye loolu kay. nit na mais loolu léegi. kenn mën a bañal. sa waay ci desee boole. maanaam nga ne maanaam maanaam euh, bu la ne woon.

wala par force ci say œuvre am na lu ma ci war a corriger du loolu. waaye gisoo fii Sénégal mag muñ corriger ah, bindam. en kay loolu la implicitement loolu. la wax nga comprendre expliqué. mënoo koo corriger mënoo koo améliorer gisoo ko koo corriger gisoo ko xool ci Google bi. Google ba loolu la xool moom. ak lu mën ah li ngay wax ci jaww jaww ay. dama ne am benn affaire boo seet ci Google. waaw gis gis réponse yi mu doon exactement li nga doon soxla mais buñ ne la nul n'est pas du par force œuvre bu nekk rek war nga am loo ci seet ut kon loo xool. nul n'est parfait yow da gëm ni nul n'est parfait. yow gëmoo ko. boo gëmul rek kon ah, gëmoo ko yàlla rek am mën gëmoo ko. yonent bi nag. ah yonent bi nag. yonent bi da doon juum waaw yonent bi da doon juum. astaghfirullah. ah non non non non yonent bi da yàlla di ko dankaafu yenn saa yi. déedéet am na benn silmaxa silmaxa bëti. na abasa ngay wax abasa. waaw ah. waaw lan la yonent bi def juum. Ah. lan la yonent bi def lan la yonent bi def. lan la yonent bi def lan la yonent bi def. ah, ah yow yaa ko wax rek. wax ah, man may wax abasa non ngay wax. waaw lan la yonent bi def ba nga ne yonent bi da doon juum. yonent bi xam nga xam nga xam nga xam nga. Euh, yow xëy na mën nga bañ xam loolu mais kii xam na ko gis nga c'est vrai que nit yàlla daf ko bind am nu ko bindee imperfection nit mhm. nekkul ci ñàkk mën produir lu parfait parce que nit. la nit non dedet loolu nekul fof non imperfection nit mi ngi nek xam nga nek kam gi lu mu doon nek deug deug deug parce que dafa nek de manière intemporelle ba fo meuna a luñ meuna a da fekk mu nek ba fo meuna a jëm ci luñ meuna a da fekk mu nek donc lolo tax nekkam gi dafa nek dafa sax dak nit nekkam gi saxul nit amna lu mu àndal loo xamante ne daf ko bindé xel bindé ko instant bindé rap yi instinct euh malaka yi esprit donc malaka yi luñ djum parce que instinct djum lo nit mais nit mën na ci yéegam ci spiritualité yegg ci liñ wax insanu insaaniyatu kamil c'est-à-dire que nekk nit ku mët seuk la preuve amna ñoo dañuy théoriser ni nit da ngay habiter un corps spirituellement nga am lo mëdëkoo euh nit bu mat nga dé koor bobu dé nga dem dugat ci benen koor ay tajiliyaat la am na koy théoriser ah, ba parce que ah, ah, mais nit fa lay dellu nit nit ngay delloo ci yalla di di indi di indaale waaw non ah kan moo ko métti kan moo ko métti man par exemple <laughs> yow même soo jàpp dama bëgg nga comprendre dama bëgg nga comprendre non kii li muy wax yëpp comprendre naa ko mais dafa am yoo xamante ne la soo bëggee yonante bi xam la wax soo amee sa mbokk mu jum da nga koy wax da nga jum. dégg naa la ci biir wax ngay wax ak Mansour Sy Cissé Mansour siise nga koy expliquer ay nit dafay jum ay est-ce que euh, ñi ñuy wax ay saint lañ par exemple wuute nañ ci laylatul qadr laylatul qadr par exemple loolu yonent bi daf ko firi dafa am benn nit boo xamante ne euh, dafa dafa am problème ak jabaram ne ko dellul seen kër ba jamono mu dem ba ba jëmmi jamono mu bëgg récupérer saa femme. bi bagi ko bëggee récupérer mu ne xaaral ma seet laajte lan la ci charia wax gis Seydina Omar ne ko man kat dama jote won ak sama jabar ne ko delul sa kër ba jamono ma bëggoon set jubo nañ ma bëgg set kañ lay mëna delu ci ndax pour mu mën ma dagan affaire yooyu Seydina Omar ne ko hé yow de bo mom c'est fini xana benen jabar rek waji jaxlé am problème té dafa bëgg jabaram Togat ba si yàgg ah gis Seydina Usman ne ko man kat li moma dal dama bëgg nak seet naka lay def ba mëna jot sama jabar mu ne ko ah su dee loolu de il faut nga xaar peut-être ay 200 ans xawma ma genre affaire yoy ay ah, quand même 200 ans mom duma ko sax dund mais quand même espoir am na dañ ma néwon mënu lam am gis see naa wax ko ko mu ne ko 40 jours quelque chose comme 40 jours rek soko ko xaaree mën na la dagal hmm. mu ne kon xaar ma yegg ci Seydina Ali dem Seydina Ali mu ne ko su guddiwul wul won mané la nga dem jëliko légui waa ji jaaxle kontaan mais jaaxle quoi ne man nag léegi lan laa war a def parce que ñii c'est des lumières pour yonent bi jàngal leen yar leen waxee nii hmm. hmm. xaar ma yegg ci yonent bi bi mu demee ci yonent bi wax expliquer ko mu ne ko lan lañ la wax mu wax ko ku nekk lu mu ko wax mu ne ko demal ooleen mu dem ooleen léegi jëmm jamono moom mooy xattaa xiin ci alquran hmm. bi mu waxee yonent bi ne Aboubacar Euh, Omar yow fan nga teg loolu mu indil ko aaye boo xamante ne wax na même concept bi te loolu à jamais lay signifié ci aaye boobu. Hmm. mu ne ko sadaqta wax nga dëgg yaa Omar ne ko yeggali mu waxaat mu ne Ousmane yow li nga wax foo ko teg mu ne ko indi aaye boo xamante ne dañ koy natt comme genre ay 200 ans mu ne ko wax nga dëgg mu wax kii wax kii wax kii. ba ñu wax lépp Seydina Ali ne ko loolu noonu day signifié ci saa si daar daar hmm. mu ne ko yéen wax ngeen dëgg mu ne ko nag gis nga yow yaa sob mais sama saxaaba yi comme ay biddiw lañ. boo ci topp rek mën na la guider. dolli ci ni wuute boroom xam-xam yi yërmande la yërmande la yërmande la ci ñoom. Mm-hmm. loolu moo am loolu moo am ci wuute gi wàññiwul seen kamaaliya bi dara dara dara dara te lu mu bon bon wax naa dégg man kaana lillaahi kaana laahu lahu am na bëri na nu ñëwee ci alquran noo xamante ne soo ragalee yàlla ma xamal la lu nekkul ci téere. Mm-hmm. yàlla wax na ko ci alquran. yàlla wax na ni benn nit dafay am jëmm toute une communauté wax na ko ñuy Ibrahim yonent bi wax nañu ne nitu nitu yàlla yàlla yi ñooy donn yonent yi lépp ñu mën daanaka lu dul nubuwa mën nañ ko moo tax am na ay nitu yàlla yoo xam te dañu am gradu mursal kuñ yónni amuñ gradu nubuwa nag mais am nañ gradu gradu ah, message dañuy bind yàlla wax ci ñoom dañuy def yàlla def ci ñoom mais kooku xanaa nga weddi seen cër mais munoo toog naan liñ def c'est perfectible ak seen lii ak loolu noonu ay yëfu caaxaan na te suñ la attaqué yow nga génne martaba suñ la nga génne martaba génne maqaam. léegi léegi qu'est-ce que tu veux démontrer. non dafa juum dafa tooñ. loolu mooy dëgg te soo dee mbokkam soo dee mbokkam bëgg ko défendre da ngay wax dafa juum waaye bëgg na Serigne Touba dafa juum waaye jullit la dafa juum waaye ñooñ tarixa la mais dafa juum dafa tooñ na jéggalu